kaay bi ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay nag mel na ni xam na jàmbatu askan wi moo waral mu fas yéene indi ay yeesal ci wàllu dund gu cher gi ay réforme judiciaire ak yeneen ak yeneen Le Soleil yëglekaay dellu soir ci message à la bi nga xam ne rek moom la njiitu réew mi doon amal ni ki ñetti fan ci weeru avril ci bi nag Bassirou Diomaye Faye ma ngay xam ne nag li gën a urgence jamono ji nag mu war cee taxaw sàkk ci ay saafara bokk na ci réforme majeure yi nga xam ne rek dafa jëm ci wàllu gouvernance te mooy engagement yi nga xam ne rek war na koo jël ci wàllu xëyum ndaw ñi xeex jëm ci wàllu dund gu cher gi yeesal yi nga xam ne rek war na koo indi ci wàllu politico judiciaire waaye joxante cër bi nga xam ne rek war nañ koo doxal ci biir réewu Sénégal ci bésub feetu indépendance bi nag yéenekaay bi ne moom jiitu réewum Sénégal nag ma nga doon amal levée des couleurs ca palais présidentiel Sud Quotidien feelu ko ne lu jëm ci wàllu bonne gouvernance wàllu politique ak wàllu économique bu Sénégal Bassirou Diomaye Faye nag ma nga cay fësal feuille de route mu war a rek taxawee bi ngir nag lu jëm ci wàllum rationalisation ak financement yu a lu jëm ci wàllum poste chef de l'état ak chef de parti nag loolee lépp fas yéene na caa def taxaw seetlu wutal ndaw ñi ak soxna yi am xëy bokk na ci li nga xam ne rek moo gën a doon ay yitte moom Bassirou Diomaye Faye wàllum souveraineté alimentaire ak lu jëm ci wàllu assise yi nga xam ne rek moo ñeel wàllu justice loolee lépp nag moom Bassirou Diomaye fay nag bàyyi na ci xel fas yéene dox jëm ci ngir indi ci ay yeesal ci ab discours bu njëkk boo xam ne rek amal na ko ca ba ñuy waajal feetub indépendance yem ak juróom benn fukki ak ñeent bi Sénégal moomee boppam léegi ci lu àndul ak benn xumbeel muy ci ndakaaru ak ci région yi le temps mooy yëglekaay feelu ko ne Bassirou Diomaye Faye kay jamono ji nag ma ngay dellu siwaat ci chantier mi mag yi nga xam ne rek mu ngi koy xaar jamono ji bokk na ci xeex lu jëm ci wàllu corruption publication rapport yi nga xam ne rek moo soxal IGE Cour des comptes rawatina OFNAC wàññi lu jëm ci wàllu dundu gu cher gi nag soppi li nga xam ne rek moo di Sénat def ko seeni boole ci ay matukaay yu am solo lu jëm ci wàllu fraude fiscale moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag ma ngay xam ne ni daal du ci wàllu wu ci mu fay xam ne nag ne dinaa taxaw jël samay matukaay amal politique bu am solo fexe nag ba koppar yu lew li nga xam ne rek moom la ñuy doxal ci biir réew Sénégal lépp ñu daal di ko fiy jëlee moom Bassirou Diomaye Faye ma ngay xam ne ni sénégalais yi ay jàmbaar lañu waaye dañoo lottu laati te loolee nag li ko waral bokk na ci dundu gu cher gi lu ni mel ñu ngi ciy bàyyi xel te fileeg ay fan ci sàkk ay saafara les éco yëglekaay dellu suwaat nag ci décret yi nga xam ne rek moom la fi Macky Sall taxawaloon nag yéenekaay bi ne Bassirou Diomaye Faye nag effacé na lépp lépp loo xam ne rek ay dogal yu mu jël jëloon nag ca conseil supérieur de la magistrature lépp la daal di moom président de la république bu Sénégal lu jëm ci wàllu formation bu gouvernement bu Sénégal yéenekaay bi di Le Quotidien ma ngay xam ne nag guerre bi am ci wàllu positionnement ci diggante Pastef ak alliéem nag loolee bokk na ca la ko yéexal leneen ci yëglekaay bi ñu àddu jëmale nag ci ëllëgu candidat bu Benno Yaakaar bi woon moom Amadou Ba nag ma ngay leeral fii nag taxawaay gi mu fas yéenee am yéenekaay bi di Le Quotidien ne moom kay jamono ji nag ma ngay waajal ngir wonewaat boppam ci terrain bi Vox Populi nag di leeral nag projet yi nga xam ne rek fas yéene na koo taxawal nag ngir gën a wane boppam nag addu jëmale ak réew mi people tey jii nag Anna Thiaw di leen la ak kii di Mayna Sourang dooree ko ci wàllu tuutànkam ba ni mu duggee ci wàllu musique loolee lépp nag yaatal na ko ci waxtaan wi mu séq ak Anna Thiaw yër leen boobee yëglekaay tàggat yaram stade yëglekaay ma ngay xam ne Al Nassr ak fukki bu yi nga xam ne rek marqué nañ ko ci wàllu championnat nag yéenekaay bi ne Sadio Mané ma ngay retrouver waat nag ay habitude am jeexalee yëglekaay yi ak enquête yëglekaay ma ngay xam